ñu ngi doon wax yowal yi di leen yàlla waxee ne nañ dugg ci al ardul muqaddasa te mooy euh, Quds yàlla may na leen ko mayoon ko seen maam Ibrahim ba ñëwee gis ponkal gisoon ne ponkal yi daal ñu mën ñoo nekk ak ñoom nañ dem rek wala ñu du ñëw Moussa ko wax rek ñu bañ ne ñoom daal bala ñoo dugg ci dëkk bi daal rek foog waa dëkk ci génn rek ñoom ñu door a dugal waaye ponk yi daal ñu amul ci benn pexe kon ñoo bañ li ñu bañ bañee nag yàlla wax àlla wax rajulaa ni ñaari waaye ci ñoom yahood yi te mooy Yusha ibnu Nun ak Kaalib ibnu Yohanna bokkoon na ñoom ñaar ñooñu ci ñi nga xam ne yonent yàlla Muusa ebaloon na leen boole leen ci fukki nit ak ñaar ñu demoon rey yi ngir xam mbir yi li ah, ñu rey ñooñu jékki pour ñu xam ne dañuy yëpp ak yooyu bañ demee ñoom fukk ñaar yëpp bi ñëwee fukki yëpp daal dem nettali ba lu Israël ne leen ñuy dee bañ ba nga xam ne ñu ma wut a génn pour dem ñoom waaye ñu ñu chaque nu Nuun ah, ak kaay yu tudd Xanaan ñoom dañoo dem rek yonent Yàlla Moussa dal koy wax ñoom moom rek la ñu waxante ko defee yonent Yàlla Moussa dal santaane ba ni Israël dinañ génne ñoom yëpp dem dem dem noonu yàlla yooyu génne leen ndax ñoom suuf ñoom la rek boo ko defee nag ñoom ñu fépp dem ñu ñoom ñaar ñooñu nag nga xam ne ñoom ñoom wóor nañ ñooy dégg waa Israël di leen waaj di leen di leen ñemeloo ne leen udxulu xaraf leen aleen ñoom albaaba du tuba de mu ne ñii dugg leen rek ngeen song leen dugg leen ngeen song alors que juróomi ñaar waaye ñu ne leen ci ne anam mbaamu seere ne laa lay ma ñoom am ci ñoom nag yow yooyu ñaar ñoo xam ne yàlla mayoon na leen ngëm yàlla mayoon na leen nangu li nga xam ne moom la Moussa santaane na leen ngay waale seen nit ñi nag lu xarfee naa yéen ci ñoom albaaba bunta béy ci maqalis te dugg leen ci ñoom rek bu leen leen ragal fay laa xar ko woo neem xalaat ngeen ci ñoom ci dëkk ba fay lu ko seen daal moom la ngeen ko benn su ngeen demee rek da ngeen leen noté ay nit ñu rek lañ waaye daa nekk sax amuñ ko ko ay ay ay ay ay jënd yu réer rek lañ waaye amu amuñ amuñ jur de bu ngeen leen songee rek dina leen di ngeen leen noté waaw laay jàll fa tawakkaluna dahru almutawakkiluuna almutawakkiluuna jàll fa tawakkalu nañu dëgërlu in kuntum na nekk ngeen mu ngi ne di way gëm yàlla rek dëgërlu leen ci yàlla rek nga xam ne jullit bu songee te dëggu ci songam te sukkandiku ko yàlla dana xam ne yàlla dina ko dimbale rek xaalu ñu wax ñoom ñu ko jël yaa Moussa yow Moussa inna naka nun lan ah xaalu ñoom yaa Moussa yow Moussa inna fiya inna lan tura xaraf ko abadan def rek ñu ne yow yoon ci Yàlla Moussa loo am ñun kat dëkk bii dara teg ñu ci maanaam fekk sax dañu siyaar ca dëkk ba fekk jabaat rek ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi fa dugg rek fa sax demal anta yow war a bokk borom sax yow yaa sa rek ànd leen ngeen dem rek a ñoom yow rek ngeen dem rayante yi de waaye ñun la yowoon yi tontu yonent yàlla Moussa ba leen ooyee ne ñëw leen ñu xay yi ci yoonu yàlla nañ def yéen noonu yàlla yi day na ko ci sax anta wa rabbuka dama yow yàgg sa borom rek ngeen xeex de ñun naan ko ñun xaay ma wéy jékki la ñu waaw naa kii la ñu kii la ñu toog ñu sat ku teg saxaaba yonent yi ñoom ba léegi noonu ko xeexaat day na ko sax anta wa rabbuka fa qaatila inna ma'akuma muqaatiluun borom borom borom borom borom wax ka ñu rek bu ci lañ ci baatu sax anta wa rabbuka ndax dañ cee jublu yàlla boromam wala dañ cee jublu xaaruna ah, um, magam ndax ci waxi yaarab yeeg waxi turki sa mag boo xam ne mooy sa kilifa sa gannaaw baay dañ ko wax rabbu ndax moo lay yar moo lay jàllale ci li war a jàll dañ ko wax rabbu ñu ne ko nag rabbu bu ñu ko waxee Moussa de aaruna ah, si jublu ndax aaruna Arouna si ñun Arouna mooy magam kon nag Arouna mooy ràbboo foofu xam nañ ci borom xam-xam yi ñu waxee noonu xam nañ yeneen borom xam-xam yi tamit yoo xam ne dañoo bàyyi rab bu ko rek mooy rab bu ko borom sax ngeen xam xale bi la bindee fakkaat laa reyante leen dinaa la ko ñun dinaa la ko ñun ñun kaay loolu ay njëkk la ñun mun naa fii de ñu ngi toog fii de muy fen xaaral Moussa ربي هو السماء إني كمن لا أملك ممكنا إلا نفسي لا بك السماء وأخي ولا أبلغ سماء يويا لمعيني أو من كذا لولو سما بابا سما بابا أرونا رك ñoo ma nangul de waaye kenn nangul ma sama bopp rek laa am ak sama mag ñoom ndax nangul nañ la ñu wax de ah, parce que yàlla nga fasalee yow yàlla bay na naa di leen sunu bay naa xaw naa di leen te ñu ñaan parce que dañuy topp yàlla rek yow yàlla yàlla na yàlla su ma di leen noonu suñ suñ di noonu yàlla yi nga xam ne ak yéen topp yàlla yi nga xam ne yàlla na yàlla suñu di leen teg ñoom rek xaala wax moom yàlla ne leen bay naa ana ko moom suuf soosu mu xaramatun lu xaramal la aleykum ci ñoom lu fi dugg arbayin sanata ñeent fukki at yetiibu na danañu te mu ñu te laa bi suuf de mu ne suuf saa boobu nag ndax daa leen dugg nañ bañ léegi nag xaraamal naa leen ko yéen fukki at yoo xam ne ñoom dañu teg seen tànk ca suuf soo sale yéen fukki at yoo xam ne dañu ko dugg ci suuf sale xam nga ba doon bi leen yàlla musalee ci Firawna def leen nag pour sa góor ak yi xanaan góor dem ngeen dugg bañ demee ñu bañ ne duñ dugg ba mu yàlla sànni leen ñu dem loo xam ne am na ñeent fukki at yoo xam ne xamuñ fu jëm dañu ñu ñu teew yi fañ fañ jógee woon bu ñu wër ñu wër di wër ñeent fukki yoo xam ne ci loolu lañ nekk te ñeent fukki yooyu ne xam ne ci loolu lañ ñeent fukki at wër bi ñu nekk di wër wër wër wër wër wër ba guddi rek université fa ñu jógee woon di ko def ba mu ko defee nag yonent yàlla Moussa mi ngi ci seen biir yonent yàlla Arouna itam mi ngi ci seen biir mu doon wax nag àndandoo ñu baax lu muy jëriñ ñi àndal ànd ak ñu bon itam li muy wàññi ñu ànd ak moom rek yonent yàlla Moussa yonent yàlla Arouna ànd nañoo borom moom nga xam ne ñi ci ëpp ñoom tamit ñoom di leen dugal Moussa ak Arouna bokk nañ si waaye te ñoom waaye nag ñoom tamit ñu bokk xam ne yàlla ko teg bani Israël la ñoom tamit ñu ànd ak ñoom ñeenti dugub yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo dañoo dañoo ñu gërëm ko wér ko ak xiifaay bi ak mar bi yàlla may leen di leen wàcceel al mënn al mënn wa selwa yàlla di leen wàcceel al mënn wa selwa yi lu ko nit ci lañ daan lekk ci lañ daan naan ci lañ daan lekk ah, i di leen benn niir woo ne waxtu bu nekk mu ngi di tawal su ko defee taw boobu rek ci la ñuy naan bon nag barke bu yonent yàlla Moussa bi ànd xibil la leen ñoom tamit am nañ lu nekk ci saxaraa bi am nañ luñ naan ci saxaraa bi loolu yëpp ndax àndoo bi àndoo yonent yàlla Moussa moo leen may loolu rek ñoom tamit jëlee nañ ci ñoom tamit yonent yàlla Moussa yonent yàlla Arouna jëlee nañ ci tamit coono boo xam ne ñoom ñëpp daan nañ ko coono rek ba nga xam ne yonent yàlla Arouna ci loolu la dee ci lëndëm boobu ci la dee ba yonent yàlla Arouna dee waa Israël ne Moussa yaa ko rey da nga ndax xam na ne moom Israël yi dañ ko bëgg te yow bëgguñ la loolu rek da ko añaane da mu naan ci mu ne la reyu ko ñu ne ko ñaan yonent yàlla Moussa ñaan yàlla mu dekk leen ba mu ko defee daal di ñëw ñi tàgg bi ñëw ba ci seen biir dekki ne leen Moussa reyu moo jot rek ma dee waaye Moussa de daal di deeaat bokk ba mu ko defee nag yonent yàlla yonent yàlla yi nga ne nanguloon nañ yonent yàlla loolu Moussa dëkk ba moo doon Yohana ak Kale ñoom xeex nañoo ba xeex nañoo euh, jabaat xeex boo xam ne xeex bu méttee méttee métti ñoom ak ñi ànd toon ba pare nañ ba xam ne jant bi te julluwuñ ci waaye ñu nga xam ne nag xeex pare na yëpp xam na yessuwaay ñaan yàlla yow yàlla yàlla ñu dellu si bëccëg bi ñu fay li nga xam ne ah, faatoon nañu eh, ndax ñu àggale xeex bi nga xam ne ñu ko xeex ak noonu yi daañu mën a sot sottal ci ñoom rek yéen a waaj a bés boobu kaaru bés boobu nga xam ne yàlla may na ko yonent yàlla Moussa eh, eh, yonent yàlla Yeshua mooy kaaru boo mooy kaaru nga xam ne novembre bu nekk te octobre eh, janvier dina feeñ février vingt vingt huit jours la waaye su fekkee ñeenti at yu passé kaaru bés boobu nga xam ne demoon na dana bési pour matal. pour pour pour pour matal ñe ak ak moomu mu mat sëkk su ko defee ak moom incha allah ko tuddee Sanatul Kanisa ndax ñeenti genn wàllu kaar boobu nga xam ne demoon na te yàlla koy delloosi te ñeenti at yu nekk da koy delloosi ci février su ko defee février vingt huit waaye bés boobu bu déllusi dafay ñaata. vingt neuf dafay dafay nekk ñeenti bés boobu daal di déllusi rek naa la ko ñoom saa yi lu may dégg dañu am naa si de ñun ñoo bañ teekuñ teekuñ de xaala xaala wax Moussa jo di ma ngay tawatal boromam nag ne ko rabbi yow borom sama nii naka man daa am ko moom ci lay daal si nar a bakkan sama ak ak ak bakkan sama mbokk sama wala ak bakkan mbokk sama Haaruna de ñun ñaar rek ñu am rek. fasoo yàlla nga fasale baynanaa diggante sunu o baynanaa ak diggante naafeq o doon xawm dëgg ko ñu naan fasike ñu ngi jëm ko teewa yow yàlla yàlla ñu musu jaay fasike xaaral ne fay naa la ko moom dëkk boobu mu xaramatum li xarama laaleen ci yoon arbayin sanata ñeent fukki guddi ñeent fukki at ñeent fukki at wax ne nañ ko dugg rek ñu nekk ci tekki boobu nag te gën a mane boobu nekk ci nekk ci nekk ci ba ci biir ngërëmaande boobu ci la Haaruna dee ni ko waxee léegi waaye ci la yonent Yàlla Muusaa itam dee moom tamit de ba nga xam ne ba ñuy duggi ba ñuy duggi Baytul Maqdis Yuusaa ibnu Nuun xam naa ñooñu ñoo des te ñoo jiite ñeen si mbooloo mi dugg Madinatu Madi seen ca dëkk bare waaye Muusaa Haaruna dee na Muusaa dee na waaye Muusaa bi muy dee ñaan na yàlla yow yàlla yàlla ma may ba nga xam ne su ma digganteeg baytul maqdis bala maa dee su benn saan rek mooy daal su ma digganteeg moom rek yonente na sallallahu xam na fañ ko suul ñu ko suul ca denc xonk ba nga xam ne mu ngi moo tax booy booy yàlla xiiree ci def lu baax nga jóg ko def fekkee nga nga bañ a fekkee yëpp xamal ne yàlla dina ko sottal de ndax moo moo la ci moo la ci dugal ah ku te wala jaay naan da eh, jëriñ la jëriñ la fekk sotti na ci loxo ñu neen na ci loxo yoo xam naa sot ah, sot ah, sot ci loxo yooyu la sotti rek watuloo loolu mooy xisatoo Moussa ak nitam ya yàlla may na leen bañ nañ ne bëgguñ dugg leen ñoo bañ ñi la ñoo raglu ba mu ko defee am nañ si ñoo xam ne nangu nañ ñi ki Yuusa ibnu Nun ak Yoxanna ak ñoom ak Kaalib ibnu Yoxanna nangu nañ moo tax jiite nañ xeex ba ko sottal ko ba nangu euh, euh, baytul maqdis ci noonu yàlla yi weer ba mu ko defee nag yàlla ngi nettali xisa boobu ngir xamal ñu jaaruwaayi doomu aadama doomu aadama lu yàlla bindal ko ne ko ci àgg dana ko yoon yi nga xam ne ci lay ci rek yoon yëpp yàlla dana ko ko yombalal nañ ci rek su fekkee nangu ngeen yàlla tëral na yoon na jàng su fekkee nanguwul leen tam dina am ci seen biir ñoo xam ne yàlla tàggat na leen a loolu su ko defee ngeen bëgg na leen yàlla bëgg na ngeen jàng de ñaari nit rek mooy Yeshua ibnu Nun ak Kaalib ibnu Yohanna ñoom rek ñoo nangu taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëggu la boo xam ne wane na ne ñoom li leen yàlla dig ne bëgg li leen yàlla dig bëgg nañ ko def te bëgg nañ ca àgg ñu jox ko itte bi ñu ko war a jox yëpp moo tax yàlla àggale na leen sa waaye nag fekk ñu lay may ba pare ngay naan xaaral rek des na des na des na des na boo waa dara doo def dara rek loolu mooy gisatu Moussa ak Haruna ak ñu dem yore autorisation alayhi ci ñoom yow yow ci Yàlla Muhammad jàngatal ci ñi ne bopp ne Adama solo si ñaari doomi Adama yore yow xarabaa dem xaq ci dëgg jàngal jàngal jàngal seen jàngal ak nit ñi solo si Haabil ak Qaabil ñaari doomi Adama lañu woon ñoo xam ne Adama ak Hawa bu ngaan jur Adama ak xawaa seen doom yi daan ñëwee xawaa jur na ñeent fukki biir ñeent jur na ko mu jur nag dafay jur doomu góor ak doomu jigéen doomu góor bi ci côté bii lay nekkee doomu jigéen bi nekkee ci côté bii nga xam ne moo jur la ñu noonu loolu noonu lañ bi jigéen bi ànd ak góor bi ñëw ñoom ñaar bi sëy waaye doomu jële ñëw ànd ak góor gële jigéen ji góor góor seen jigéen jooja seen góor gi. noonu lañ noonu lañ noonu lañ noonu lañ daan ba defee nag xaabil ak xaabil ñëw nañ bi ñëwee xaabil am na doom ñu koy wax lëb buuda am na rak ñu koy wax lëb buuda moom xaabil am na doom am na rak bu ñuy wax tam am na rakam bu jigéen waaye nag lëb buuda moo dàq rakki ah, ah, xaabil moo moo dàq rakki xaabil xaabil ne moom moo bañ xaabil ne moom moo bañ jigéenam ne moom loolu rek lay def de rek lay takk waaye ñu jël bu ñaaw bii di yox rakam bi rafet bi di ko jox xaabil loolu moom di ko jox xaabil moom moo bañ dama ko defee nag ku loo xëccoo aadama ne ko defal li la yàlla wax dara yow yaa def la neex rek yaa topp sa bakkan rek waaye man maa bañ du ma ko nangu rek xam nga defee nag yàlla daal di ebal ay yàlla ebal jibril mu yoon bi na génne ci ñu liggéey sarax sarax si jaamu ko yàlla su ko defee sarax soosu ngeen génne bu safara wàccee jógee asamaan lu mu ci jël rek loolu mooy atte bi boobu la yàlla atteel ne mooy yëfi de xaabil <coughs> moom def daan bay xaatim moom daf daan yar euh, ay njur ay njur la daan yar ba nga xamee ne wax leen génne leen sarax xa daal dem génne sarax ci euh, mbayam dem rek lu mu rek lu mu ja ja dem indi moom moom yarkatu ay gàtt la dem jël ci ay gàttam benn xar boo xam ne indi ko duñ ko indee ba safara wàccee di leen atte ñëw nangu oo xarum xaalis mi yóbbu ko asamaan moomu moom la wax ne moom lañ jotee yonent Yàlla Isaa moom mooy yonent Yàlla eh, Ismaël bañ ko bëggee rey de nee nañ xar moomu lañ ko jotee ba mu ko defee nag xaar a mer daal di moom moo bañ deful dara moo bañ joxe mu moom jigéenam rek lay takk see moom de ba mu ko defee mer daal jël jigéenam par force. moom la yàlla di nettali il xaraba ba ñu jaamoo qurbaan ma ñu ñu joxe seen jaamu ba kan la nangu jaamu xaabil moom la nangu waaye nangu jaamu xaabil ba mu ko defee xaabil la li nëbb ci bakkanam nag mer ak fay rek فقال فقال الله من قابل يا قابل ولا تقولن قول لا إله إلا الله man daa la rey ndax lu tax yàlla dina mu samay dina mu sa ñaam te dina mu sama bos xaaral mu wax xaabil xaabil na ko innama yataqabbalu laahu naka dana nangu yàlla min al muttaqina ci way ragal yàlla de yàlla ci muy nangu jaamam mooy ki nga xam ne ragal na yàlla waaye ki nga xam ne daf koy def rek ñu ngi jàngati kooku njaamu yàlla du ko nangu def ba ko defee nag xaabil na ko dinaa la rey gannaaw noonu la demee yow dinaa la rey xaabil na ko layin basata wallahi ndem taalal nga yëgal nga xëy jëm ci man ne rek la fas yi tàttu rek nii nit na nga rey ma maa na dem na mi passé dem ma yaa ñu tàllal yéen yéen la fas may rek jëm ci yow yaa tudd ak nit na ma rey la rek soo tàllalee sa loxo jëm ci man ngir rey man de du man tàllal sama loxo jéem laa rey rek lan inni naka man attaafu la ma ragal laa yàlla ragal bi ñu waral de man damaa ragal yàlla rek inni naka man uridu dana man mu am te mu wax delluwaat bi ismi ci bàkkaat sama wala si naka sa rek man dama lay rek nga def bàkkaat yi nga xam ne moom nga war a def de bàkkaatu rey ak itam ak bàkkaar yi nga xam ne tàggoo ko rek ñu ne lu taxoon nag jabari la buudaa dàq rek ci xaadim ndax la buudaa moom aljanna la ko yaayam biiree moo tax aljanna la ko yaayam biiree moo tax mu dàq ki nga xam ne si àddina la juddoo ba mu ko defee naka noonu itam magam xaabil moom tamit foofu la ko foofu la ko xawaa biiree donc dafay ñu ñëw ñoom ñaar ci àddina ñoom ñaar nag dëgg-dëgg ñu ñu ñu préparé àjjana ñu dàq ñu préparé àddina rek su ko defee nag Xaabil daal di bañ daal rakam Haaruna rey rakam Haabil Haabil Xaabil daal di daal di rey Haabil am ko reyee nag daal di jël jigéenam daal dem génn dem yoonam ba demee moom tamit samp liggéeyam mbay ak itam sampat eh, riifi ñoo ko jëkk def riifi ak xalil di di xal di di ñi di leen musigal ñuy fecc xaabit moo ko jëkk a fent su defee ci loolu lañ daan ñëw ci biir nit ñi boo xamee ne jafe nañ ci ñoom ñu ñëw ci biir nit ñi su ko defee ñooñu di leen sarax mi nga xam ne am nañ ko ndax di leen sarax mi nga xam ne soxla nañ ci la xaabil ci la xaabil mujj ak jabaram mujj na nekk mbooloo mu bëri ñoo xam ne woykat yeeg fecckat yeeg tàggkat yi nii yeeg ñëpp boo demee ci ci xaabin moom xaabin moomu lañ bàyyi koo ci waxi nettali téere yi wazaalika loole jazaawu zaalimiina parce que boo nekk ci safara de boo ma ba pare ray kadu yo saballa yobde wallaahi ko loolu de jazaa'u zaalimiina mooy bay mooy tooñ ñi rek képp xam ne tooñ nga rek tooñ tooñ mooy kuréel yàlla utal yàlla bokkaale moo tax tooñ yàlla dina wax ne fatakuuna mina zaalimiina yi sabal lañ jëm waaye zaalim mooy yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo bokkaale ak yàlla waaye doonul ne képp ku nekk zaalim rek sabal nga jëm ndax ñu ñu ñaa ngi tooñante biir waaye waaye nag liy dem safara mooy daal li nga xam ne mushrik la rek génn na ci àtte yàlla yi dugg ci àtte boppam ni xaalis mi li li xaalis li xaalis mi def def wazaalika loolu de jazaa'u li man farawayta fa tabaaraka dal lawu nag lawu ñaan ko ma bakkanam dañ mu daan rey ma fa xatala bu ko waa soo mu jóor li ñoo xaa seen way bokk ci way gàtt ñëwe ba mu reyee mbokkam ba pare nag rey na ko mi ngi door a gis nit ku ku dee ngi door a am ci àddina xamul lu mu ko xamul lu mu koy def mu gàddu ko rek wot ko rek di wër ak moom ñetti fan xamul lu muy def moom def dama ko def du rek mu ñëw ak moromam baaxaañ ak moromam ñu ñëw di xeex benn baaxaañ bi rey benn bi bi mu ko reyee pare di gas ci suuf gas gas gas gas gas ba mu bon mu jël baaxaay bi di wër ko ci dañ koy la war a def moo kam xaabil dañ koy dañ moom tamit dañ koy gas suur ko ne ba mu ko suulee ba pare nag li ko naqari mooy ñetti fan yooyu bu ko amee di wër xam nu koy def mu ne loolu la réccu wala ñu ne déedéet dafa réccu rek ndax rey na moo moo xam ne moo ko daan wéttali loolu la loolu la réccu ne waaye lu mën di am daal ñàkk na mbokkam te itam am na ko rafetee dama ko defee loo xamee ne kenn du ko fay ñëwee yëpp gis ko ba baax sa maaw yoon yàlla bu waatal na da baaxaañ yëpp xasu dana mu gës gëstu te daal di si suuf de yàlla yebal baaxaañ mu ñëw di gës si suuf de ñu yëwu ngir na mu woon ko kay bay waaye naka muy suturaaye sa wataati jëmm jëmmi jëmmi mbokk bi nga xam ne dee na de fakkatal soo taatee jëm jëm bokkam ji dee fakkaala fakkaala moo ne yaa way la daa xeet xeet xeet man toroxtaan sama man maa torox a añu su dana ma lottu tan ëpp na moo nekk ni sa kuraale ci kenn bànqaay de ba mu ko defee ba mu ko defee ba gas ko ba suul nag dal ne ay man maa torox yëkki ba nga xam ne dama am picc rek di picc yi def loolu lay def ci man def رب قرآنك فهو عليه تسترال سوى تأتيه جميع بوك سما نيغا خامن دي يو سوى تأتيه جميع بوك نيغا خامن دي أنا دي فأصبح مؤمنا ناجيا di bokk ci way ne ci yore boo ko defee nag mu daal di xëy nag ma nga xam ne def na ko ci mbokkam ndax ray yi ne am na ñoo xam ne loolu la waaye nag wéccu day rek lim ko bootoon gannaaw loolu ñetti fan yi wala moom xamul ñu koy def ba kii woon war a defee loolu mooy aadama li nga jot jot doomam yi jote nañ kon li nga xam ne moo ñaari bàkkaat ñu njëkk a xew ci àddina bi ñaari bàkkaat yëpp yëpp ku dem safara rek ci benn ci bàkkaat bu a bi mooy bàkkaatam rëy iblis a ko njëkk a def ana xayrun minhu man naa ko loolu la wax ndax rëy xam ne rek ba rëy laa def lu bon xamal ne rek bàkkaat boobu ci iblis nga ko jëlee bon yàgg iblis dana tase ak moom de bàkkaatam rëy ci kaw tooñ loolu itam képp koo xam ne def ko bu boobaa xaabil mooy si sëriñ ci moom ko jëlee bon nag képp koo xam ne rëy nga bàkkaatam rëy indi na la def loolu def loolu bon bàkkaatam rëy indi na la def loolu bon ki ki nga topp ci loolu dëgg-dëgg mooy iblis sa topp ak xaadim ñi nga xam ne ñoo njëkk a tëral bàkkaat boobu ci àddina rek kii moo njëkk a tëral bàkkaatu rëy kii moo njëkk a tëral bàkkaatu kaw tooñ rek ba pare dara yàlla wax ne <coughs> mais nag léeg-léeg ñu jooju la jëf ah, ah ah xam-xam def ko. كتبنا لهم وهب على بني إسرائيل في بني إسرائيل أنه نقل من بيت من قتل قرينا نفسا بكر غير نفسه جندور بكر وقمنا القرين أو أو فساد تجي بيجي أجاك بلا تشوف ولا ممكن أجاك تشوف فكان ما قتل لنا قرينا ناس من جميع قوى سيدة موتى يلا بنت بني إسرائيل ñeneen képp koo xam ne dañu farataal ci benn Israël képp koo xam ne rey nga ci loo xam ne du dëgg rey ci kaw tooñ rey ci bakkan boo xam ne yàlla yoon rey nga ko bu na nga xam ne rey nga mboolem loo xam ne yàlla bind na ko ci aadama ba léegi naka noonu itam boo xam ne bindoon nga bakkan boo xam ne mënoon nga dimbale ko xam ne dundal nga dafa dalee ci kooku ba ca aadama rek ومن أحياها كل دون مقر فكأنما أحياها daanaka dundal na mu naat seen jamian bu wàllu seen dëkk boo xam ne itam danaa dundal bakkan boo xam ne dafa naroon na dee nga fexe ba mu soog a mu dégg mu ne boobu itam na xam ne dundal dundal na mboolem nit boo xam ne la ko dalee ca moom ca Adama dundal na ñooñu ñëpp bokk na nag ci rey nit mooy nga réeral ko rey nit réeral ko ba gis yoonu dëgg ku am dëgg wala ñu gën gëstu dëgg nga ñëw sa fexe ko fa soppi ko andi xam ne réer la andi ko ci loo xam ne dafay sànq dundam daanaka rey nga ko ndax def nga nit koo xam ne amatul benn maanaa soxlaam ci àddina yëpp mooy loo ci àddina bi nga soxla nga ko wala gis yàlla yàlla amul yàlla nangam yàlla amul yàlla fii fii te bàyyi yëpp boo fexe loo xam ne génne nga ko. ci pas-pasam bi nga xam ne nangu na ne moom yàlla moo ko amal ndax nit moom kenn rek bu kenn dugg ci moom dana xam ne am na lu ko amal de ndax dana xam ne moom amul boppam su gannaaw amul boppam nag dafa amal ko amal yàlla rek la mën a doon ñëw na pas-pas yooyu nga xam ne mooy pas-pas yu wér mu fexe ba nga xam ne soppi na la indi la ci pas-pas yoo xam ne du pas-pasu dara kooku daanaka kooku itam rey na la rek boo kooku boo réeralee benn nit rek na nga xam ne réeral nga nit ñëpp ba sa ko doon ci àdduna ba ci kooku nga réeral su ko defee bàkkaat yooyu yëpp yéen yéen tamit ci yow la jëm si rek su fekkee jubal ngay dem naka noonu itam de loolu itam fexe nga ba nit jub tegu ci kaw yoon kooku yoonam nee na àddina gi ci biiram ak jineem yu xonq yëpp moo gën benn nit jaaree ci sa loxo dugg ci yoonu njub mu ne moo gën àddina yi si biiram wala moo gën téeméeri jineem yu xonq rek ndax jineem bu xonq ci arab bu war a reyee yaay maa ñu xëj na génn ci lislaam gëmoon na weddi weddi na gëmatuma léegi murtad na bu boobaa lislaam bi mu àtte mooy ne dañ koy rey mu jeex wala boobu koo xam ne am na jabaram ba pare ngi këram njaaroo kooku itam bu bu bu bu seede yi taxawee ci kanamam kooku itam dañ ko war a rey koo xam ne itam dafa rey nit taxawee ko ci kaw dëgg kooku itam dañ ko war a rey de ñett yooyu lañ war a rey ci lislaam beneen leneen lu loolu rek amatul sant rek te bu boobaa rey boobu yow nit ki reyoo ko yow da ngaa exécuté rek loi bi nga xam ne moom la islam tëral moom nga exécuté ci kaw waaye du yow yaa ko rey su fekkee nag yett ah, yooyu benn am na ci bu boobaa dinañ ko rey rek su nekk jamono yi ñu toll borom xam-xam yi wala ñuy tuddee intellectuel wala ay laïcité yi ñu ngi naat naa tax. nit boo ko soppee diineem ñu di ko rey loolu nit ku nekk am na droit lu ko neex mu gëm ko dem nañ ba a xam ne fi mu ne ñu jéem ut yeneen lay xam ne déedéet loolu ne li mu tëdd rek moo tax ñu rey ko mooy ne mën naa am su fekkee jamono jafe-jafe ñëw na ànd suñu diggante ak suñu noonu mën na faa jógee dem toxal suñuy xabar ak suñuy secret su ko defee bu boobaa daf ñuy uñi bala bala fee nekk di ñu nag ñu rey ko rek mu jeex benn yoon jubluwut la yoo xam ne li ko li ko waral mooy jamono ju rek <coughs> nit ñu bëri wax ñeeg lu leen neex ñu wax ñu leen tuddee ay intellectuel ak ay laay ay laay ay laay ak ay yu bees yooyu nga xam ne ñoo nañ jaxase àddina bi yëpp di fi di leeroon yëpp gën nañ ko lëndëmal lëndëmal lu ko rek mu ne ñett yooyu rek dañu war a waaye nit de a jaa'athum dikkee na leen ñoom bani Israël rusuluna ay yoon sunu di baynaat ci kawteef yi duggee ñoom bani Israël yooyu yàlla yónni na ci ñoom a ay yonent yu bare bari yoo xam ne wax nañ ni ay yonent ñu ngi ko ci yeneen xeet yi rek su ñu nekk si ren toppatoo yi bëri ñun ci ñoom maa ngi leen di si gannaaw loolu la mu seet ko la way ak la ñu daan ci suuf rek ñu bëri si bañ saay gannaaw yonent yooyu te woon ay yàqkat lañ yàq nañ ci suuf yàq yoo xam ne dëgg-dëgg ñoom rek ba ñuy saay dañoo ko yàq rek ndax jafe àddina jafe àddina bi bañ jafaloon jafe àddina bii ñu dund nii boo demee danga fekk ci biir loxo ba ñuy saay la de. ndax da nga fekk ci biir Rothschild te Rothschild ñoom ñëpp ay yëwoon lañ te boo demee àddina genn wàllu alali àddina bi ko moom lépp loo xam ne ci kaw àddina bi ak nu mënti mel rek boo demee seen loxoom seen biir bi guerre yeeg ndax guerre mooy maye alal guerre mooy maye alal ak jafe-jafe yi jafe-jafe mooy maye alal nit jafe-jafe yi ñu toll nii yëpp boo demee borom alal yi ñoom ñu ngi ko ñu ngi jeex a alal yi gën a dina a yokk alal rek su ko defee parce que buntu yooyu nga xam ne ñu ngi koy gis yokkee ko seen ñi nga xam ne nag ñoom gis di jënd loole masque yaa ngoog jënd leen euh, gel yaa ngoog jënd leen ngeen di jënd rek ngeen di jënd rek yéen di defar bi jaay rek yow ngay defee seen alal la yokku yow loo am jaay ko jaay jaay ko jëndee ko gel jëndee ko masque jëndee ko lu nekk ngir ne da ngay musal sa ci xay woowu moo tax xay woowu kon nag dajale la àddina yëpp ñaare nit nit bi ci daf cee daan bàyyeekoo am yokkute guerre bu jeex rek ñii ñi danañ doon nekk ci gannaaw guerre yokkute dina am xay woo xam ne am na ci nit ñëpp boo demee li ci bàyyeekoo mooy yokkute ak dooleeku dana ñëw ci nit ñi rek waaye ndax jamono bii ñu toll ay yi nga xam ne capacité na adduna bi yëpp ndax dinañ ñi dañ ci génne noonu waaw waaw dina am ñu ci génne noonu waaye ñi nga xam ne fañ nekkoon nañu nekk rek ñoom dañuy gën a daanu rek ndax pexe yoo xam ne gën naa wéy suñuy pexe ah, gis yoo xam ne gën naa wéy suñuy suñuy gis mën-mën yoo xam gën naa wéy suñuy mën dañ ko seetal ñooñu nag. su fekkee gisuñu dund seen bopp bu ñu xëcc rek seen bopp lañ koy yóbbu rek su ko defee nekk nii ñu nekk ci jamono boo xam ne jamono bu jafe la jamono xam ne delloo na nit ci boppam ne ko mënoo xamoo yàlla rek a mën yàlla rek a xam su ko defee nag ndax dañuy jógee ak yeneen xam-xam yoo xam ne xam-xam yu bees la dañuy jógee ak yeneen système yoo xam ne système yu bees la dañuy jógee yeneen gis-gis yoo xam ne gis-gis yu bees la yoo ne moo mën a doxal àddina bi teg ko ci yoon wala dañuy dellu ci lañ nekkoon rek dellu ci lañ nekkoon moom mën a ak am ndax moom àddina bi bind ne loolu moom jeex na loolu tul mën a nekk rek su ko defee yeneen àddina beneen àddina la ñuy séntu àddina boobu ñuy séntu naka lay demee ci xam-xam yàlla la nekk de waaye ndax yàlla indi nañ soppi rek innama jazaa'u rek nee na ka payam ñaa ñu yokkaale mu ne danañu ah danañu danañu xare allah yàlla wa rasulam yonentam ñooñu la ko wasal wàcc nañ seen mbooloo boo xam ne ñu ngi leen di tuddee ahlul karaaba mooy ruggookat yi dagg nii ci ci àll yi di nangu seen alal ruggoo ay ruggookat ak addu kalfe yooyu ñuy wax kalfe di daggaat nit ñi di nangu seen alal ci ñooñu la wàcc rek daf cee am benn mbooloo moo xam ne dañoo mus a ñëw ci yonent ne ñoom dañoo sonn dañoo feebar dañoo nangam wax seen wax ba yonent ne nañ leen yóbbu ñu dem ci gileem yi yonent ci gileem yi nga xam ne gileem yi salaate la ñu nekk fa di naan ca meew ma meew gilem yi naan si saw gilem yi di ko sangoo ba yàlla may leen ñoom ñëpp am kàttan ba ñu wéree ba am kàttan rek li ñu mooy ñi nga xam ne ñoom la yoroon te dénkoon gilem yi ñu ray leen ñoom ñëpp daal di nangu gilem yi daal di dem seen yoon moom ko defee yoon daal di eble ci seen gannaaw mbooloo am ñànga ñu topp leen bañ topp leen ba jàpp leen delloo si leen biñ nag danañu xare laa yàlla rasulullah ak yonentam way voilà way sànna dañuy dox filaatu si suuf fasaada ñu jaatale ak ñi nga xam ne si suuf dañuy yàq rek ñu leen di ak ñu leen di àttee ak ñu xattan wu dana reet leen ñu salabu et ñu salab leen aw tu xataa yi kii dox ay biyam ay wax seen waa ñu doon ak tàkk seen tàkkim ci wuute de aw ñun foofu ki dàq leen dina laatu si suuf de mu ne bu ngeen di àtte ci dem ci yii atte yi doon doon bokkul la ne da ngay bu la neexee nga tànn bii bu la neexee nga tànn bu la neexee nga tànn bii loolu waaye benn bu su nekk ak atte boppam bu taxaw la ndax ku nekk la nga def loolu lañ lay atte su fekkee lu góor la def nga ay nit am ngooram ngeen ngeen def ay nit ngeen rey ki xam ne boo rey nga kooku la ñuy rey salaf ko ki xam ne sàcc na ci alal te rey kenn kooku la ñuy mag loxoom ki nga xam ne moom reyut sàccut reyut sàccut kooku dañ koy ko dëkk bi waaye loolu la waaye ne yaay maa ngeen def leen nii yaay maa ngeen def leen nii yaay maa ngeen nga xam ne ruggoo na rey na sàcc na kooku dañ koy rey ba pare lépp ko dañ koy ki nga xam ne sàcc na te reyut kooku bu ñu ko yàqee dañuy ci loxo ndeyjooram ak euh, ak tànk ak ak moom la ñuy lu tax te bu njëkk sàcc loxo bi rek lañu daan ndax kii daf ko boole ak lu góor ba euh, nit nangu alal euh, lim lim ci boole nekk ruggookat looloo tax ñu ñëw ko ci dagg tànkam de wala boog su fekkee yow nga ci mbooloo mi rek waaye rayoo sàccoo boobu dañ lay daal ci dëkk bi loolu fa dëkkati zalika loole boo koy atte kenn suñu gàcce la la mu yàlla de atte boobu la leen yàlla di gàcce ci àddina de fi dunya ci àddina loolu mu wax ci ñoom azabu mbugal azimu mbugal ji màgg ci laaxira ci laaxira de noonu la leen yàlla di mbugale fii ci àddina ñu dagg leen wala ñu ray leen wala ñu nekk leen wala loolu lañ loolu mooy seen mbugal ci àddina mooy seen toroxtaani ci àddina ëllëg ci laaxira nag yàlla dina leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu màgg leen te du mbugalam safara rek inna la dina naka ñaane taabu tuub nañu lu dul nag ñi nga xam góor jël alali jàmbur rey waaye nag balañ laa jàpp bala laa balaa gouvernement teg sa loxo teg loxoom ci yow tuub nga dellu nga gannaaw tuub nga génn ci li nga nekkoon yëpp yàlla mu ne yooyu dina leen baal min ba ni min qabli an taqdiru njëkk bu ngeen xam dara da ngeen ci ñoom njëkk bu ngeen lay jàppat ñoom laa naka yàlla rafuurun ko rek rahim la la mu leen de su fekkee tuub nañ njëkk ñu yàpp leen ñooñu yàlla dina leen jéggal yàlla dina leen yërëm de su fekkee nag tuub bu ngeen jàpp leen bu boobaa nag la ñu loo teg seen kaw yoon de yaa ayyuhaa llaziina aamanuu ee gaay taqwa ragal leen yàlla ragal leen mbugalam yàlla da ngeen topp da ngeen topp rek waxtawoo sàkku leen ilay jëm ci moom la seen sa jegeñ de na ngeen sàkku itam loo xam ne da leen jegeñal yàlla de da leen di jegeñal yàlla nag benn la ci yàlla di jaamu yàlla ñu ne ko yàlla sante wala itam ngay nga xam ne yaskuruna yaskuruna maa zaakirina ak ñi nga xam ne itam ay wàllu yoo xam ne nit yi wàllu yoo xam ne dagg nañ jëm ci yàlla ñu ñëw ànd ak ñoom ci yoonu yàlla ñett yooyu mooy ñett façon yi nga xam ne ci la ñuy jaaree ngir def tawassul di taqarru bi ilallahi tabaraka wa taala noonu lañ koy amee rek benn bi ah pour pour pour la dikran kasiran léeg yoon la ak itam bokkul maa zaakiriina ànd leen nag si karkat am na itam benn laaya wattabi sabiila man anaaba ilayya boo gisee jaam boo xam ne mu ngi yoon te dëggu àndal ak moom ci yoon woowu ndax yoon woowu yàlla dina la may nga mën jege yàlla rek su ko defee ñett yooyu yëpp yàlla na ko ci kanam jaam ngir nit ki di Euh, di ko di ko topp di ko fuub di ko kaytu ndax mu am lu ko jege yàlla rek la tegi-teg yooyu nag yàlla mën na koo may mu jege yàlla rek waaye loolu man fi xam itam gis nga nii rek tu mooy lan topp sa borom topp sa borom mu moo topp sa borom nit bon wa tamit sa biir man naa nga wax ne toppal ki nga xam ne daf lay xëcc jëme la ci man yàlla moo wax ne topp ko rek waaye ñoom ñoo xamul lan mooy shirk billaahi la day la wax yow ngay bokkale yàlla te bokkalaaj yow ñu bokkale ak yàlla sax xamul lan la xamul dund ko waxee rek ndax dëgg-dëgg nit nekk nii surtout jamono nit ñu bees ñi ëpp nañ di ñi xelam bii moom yàlla ñoo bokk àddina bi loolu kenn benn xel na nga ko léegi de xanaa ni li ci nekk rek nit ak baaxam ak aadaam boo xam ne doom bi ko ba mu yàgg ci moom lool ba lool jafe na ci comme ñi nga xam ne ñii nañ jaamoo ay buud ay bouddhiste yeeg ay <coughs> jàmmkati xerem yeeg yooyu yëpp miin dañ ko miin rek mu yàgg fi waaye loolu xam nañ ne doyul leen pour yàlla rek <coughs> maa ngi dégg ba ki dem ba baat mu ngi woote ne ñu ngi ñett yàlla ci corona bi ah. waaw. wa jaahidu jihaad leen fi sabilillahi ci yoon yàlla bi kawel kawel kawel diineen de fi sabili ci yoon yàlla bi kawel nag ci yàlla ngir kawel diine yàlla de jihaad nag mën naa nekkee mën naa nekkee lu nekk mën naa nekkee nga am jikko bu rafet boo xam ne jikko diine la nit ñi gis ko ci yow ba mën nga sax li ñu gis ko ci yow bu mën na cee roy bu boobaa loolu jihaad la jihaad la jihaad la waare waare woo xam ne du waare damay jalgati ki may waare waaye dama koy jéem a dégguloo ndax loolu la yàlla santaani koy daadi lu billati hiya ahsanu gannaaw rafetam ñëw na ci rek bon ki ngay waxat na jéem a na a rafetal wax ji ba dugg ci bakkanam waaye bu ko fi nekk nag di ko jéem a won ne yow da ngaa xamul dara man maa xam yow jaahil nga man fi ma nekk mooy nekk ci dëgg ku ci nekkul nekk ko ci dëgg yooyu waxi baatil la du dëgg waxal ak moom sa nawle nit jox ko cër jox ko kattan xam ne fi nga nekk yàlla la ci agri te moom agréwu ko agréwu ko fa la xàq yàlla ne la nga oo indi ko ci li nga nekk bu boobaa nag bu koy indi dañ ah, koy indee di la ko yàlla santaane wa jaadilhum billati hiya ahsanu wala tujaadil kitaab yi illaa billatii hiya ahsan yëpp wax na na rafet rek na rafet rek bu rafetee eh, di ngeen di di ngeen am li ngeen bëgg de waaye nag jalgate rek maa la gën a maa la gën a maa maa la gën diine maa la gën sëriñ ak maa la gën yooyu yëpp dara du si dëgg amul de baax baax la rek baaxee ci yàlla baax baax la rek yàlla ñu yàlla baaxal laala ku ndax alxuraan ñeenti la de ñu ne la dina naka yaa ngi kafaru xam ne wet nañ yàlla law anna lahum doonte sax na ñeexal leen maa fi laaj la nekk na ci suuf jamii'an mi mu ñu mboole warul sawu ak kemam maa woo ànd moom li yaftadu ngir nañu jot bi ci moom min azab yawmal qiyaama ci mbugalam bés penc maa ko kubéen nangoo fu ko nangoo ñoom de ñi nga xam ne yéefar nañ weddi leen yàlla gëmuñ su leen yàlla mayoon àddina yëpp ak kem ak kem muy alal ji jeex du xaaj ñu kenn ci ñoom moo ko moom mu joxe ko ëllëg nekkul dafay jël bopp ci safara yàlla nee na ko nangu rek àddina bi ci biir man li ngeen di peccoo yëpp rek ko moom waaye man yàlla amul ci sama rek bon nag léegi su fekkee nga bëgg a jot sa bopp jotal sa bopp léegi dërëm bi nga yaakaar ne boo ko dencee bu ëllëgee mën nga ko naxe malaaka yi malaaka yi xamul dërëm xamul dara ñoom rek malaaka malaaka boobu rek lañ xam kon nag su fekkee bëgg nga sa dërëm boobu jëriñ la boo léegi mu jiitu la fa yónnee ko saraxe ko yónnee ko defee ko lu baax pour doomu aadama yi yónnee ko tabaxal jumaa wala nga bokk ñi tabax jumaa yónnee ko tabaxal jàngalekaayu alquran wala lu aju ci jàngal bi yëpp duñ jàngal du jàngal mbir baax na waaye nag li nga xam ne moo koy jàngal diineem moo gën jàngal koy xamal diineem moo gën jàngal ko loo ko jàngal loolu rek doomu aadama dafay yomb a tartiis dafay yomb mu ci ni rek su ko defee dafay dem ba yaakaar ne lii mu nekk mooy dëgg absolu te dëgg absolu su fekkee xam nga ne dara absolument caadina rek lu nekk rek c'est relatif lu dul rek li nga xam ne mooy yàlla loolu rek mooy def li nga xam ne c'est absolu rek te loolu itam ni ñaa ngi ciy demee comme yàlla bëggee ni lii yàlla xamal ci moom loolu rek lañ xam yàlla yëpp xamuñ ci dara xam ah, xam-xam yëpp xam-xam yëpp lu xam-xam absolu waaye suñu pas-pas yi moom man naa am pas-pas boo xam ne c'est absolu yàlla kenn la moom dëgg la xam ne amul benn werante waaye leneen li ci des yëpp nag moom c'est relatif am na inna ma ma xubla bi moom wala moom war na ci ñoom azabun wala da ngeen mu daa ji tag ñooñu nag yàlla daf leen di mbool mu tag yooyu duna danañu nam moom ah wala mu war a ñëw maanaam mu war a mu xew wala sax ëllëg yàlla dina leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu soxla de yu wiy dund danañu namm danañu bébét ak njax lu ñu ñu génne bi leen naawi ci safara safara danañ toog a toog a toog bay bébét ne dañoo bëgg génn safara rek danañ ko def ndax danañ toog toog toog toog ah jullit ñi daal ñu leen xam nañ ko mooy àddina bañ fa nekkan dañ daan jooy jooy rek. nag e e e na daal di deewoo ñoom it di jooy jooy jooy jooy jooy jooy ba seen xol sedd kenn faalewu leen de ñu ne ah bon xam nañ na lu ñu daan def mooy dañ daan jaamu yàlla kon nag nañ nañ nañ nañ yàlla bu boobaa ndax jaamu yàlla fam am mooy fa nga xam ne fa la jafee fa fa gëm jafee foofu ngay jaamoo yàlla jamono ji nag ci àddina dëgg-dëgg gëm dafa jafe ku ko yàlla mayut kenn mënu ci dugal yàlla rek mooy tànn ay yaamam may leen yu gëm nangu waaye gëmal yàlla ana yàlla gisuma ko gëmal malaaka malaaka gisuma ko euh, siraat euh, euh, téere yi ñuy sànneeg nangam ak nangam yooyu yëpp gisoo ko waaye gëm nga ko gëm nga ko ba mel ni yaa ngi koy gis loolu mooy gëm yàlla foofu la gëm yàlla di nekk gëm yàlla foofu la jaamu yàlla di nekk jaamu yàlla waaye ñëw nañ ba jàkkaarloo moom dañ ne ah waaw kay léegi d'accord na tey jii sa d'accord nga njëriñ de ndax fa a doon daal loolu dafay yomb ba ëpp kon nag comme rek foofu la foofu lay rek nga ne yàlla dafa may doomu aadama kattanu liit dafay xëccoo rek di rek di lay nekk ci àddina bi ba àllaaxira nag bu ko yàlla yóbbu ca na fa la yokkaay ba foofu lay noppaloo leen dama yàlla jafe ñu ci yàlla yóbbu sama am nga ñoo nga xam ne ñu lay génn mu gàtt sa sabab bu ci safara sax wala mu mu dem mu daal di sax rek loolu mooy loolu ñi nga xam ne ay bokkat lañoo ay ñi nga xam ne dañoo nit yàlla gëmuñ ay ñi nga xam ne réeral ñi yàlla di ko duggee ci ay lay yoo xam ne lay yi mën naa du ñamal xel waaye ku yàlla may ndimbalam lay yooyu yëpp yooyu ngay gisee nii ay font la rek ku leen bëgg a wax yàlla amut ba pare bëgg laa indi lu tax yàlla amut dëgg daf laa bëgg a nax rek waaye moom mënta indil sax yàlla amul de ah ndax lépp lépp a ngi taxaw te lépp li taxaw mooy yàlla nga ne xanaa yow yaa waaye yàlla moom mi ngi defee di lay dugal ci ay wax ne waxi réeral nit rek la waxi ay démocratie ay droit de l'homme yooyu yëpp waxi soppe bëgg a soppe addina Europe la bàyyeekoo Europe la Europe njëkk a bàyyeekoo après révolution nga xam ne xewoon na France après révolution France bi yëpp baat yëpp ci boobu la am waaye njëkk révolution française baat yooyu bu amee itam amut tendance euh, euh, bi ñu am léegi xëy na si jamono gi rek yi mos nañoo dégg ñu naan démocratie waaye nañ ko déggee woon ñoom ak bu léegi bii xaaj yu te doon benn ndax ñoom dem nañ ba ne sax. su ma ko sebaaxul dañ koy génne mos nañ ko wax jamono ci grec bon nag yëpp waxi waxi nit rek la waxi nit lañ jëm ci nit du waxi yàlla mu jëm ci nit waxi nit bu jëm ci nit nag li lii rek moo koy taxaw yaa ngi màkkelu na d'accord mën nañ koo seq di jëm di jëm téye ko suñu mbiri àddina waaye wax loo xam ne itam xel ndax lu ñu la wax ci àddina rek mën naa am ñoo ko bokk ñoo ko seq ñoo koy dimbali ko démocratie mooy ñun ñëpp ñoom nañ bokk am bu kenn gën kenn bu kenn tane kenn sa gémmiñ sa wax kenn dootu ko déglu jeex na mbooloo mi na wax lii nga damay génn ci waxi mbooloo mi lu boobaa rebel ngay doon doona toog doona nit koo xam ne nit ku civilisé nga waaye nit ku civilisé gi nag mooy ki nga xam ne lii mbooloo mi ànd na ci dëgg la te lu yàq sama diine nekku ci bon dinaa ci ànd lu yàq sama diine nekku ci bon dinaa ci ànd su fekkee itam ñu ngi lay wax euh, nit ñëpp ñoo bokk yem du ñoom ñoo ko wax yàlla moo ko wax yàlla moo ñu ko jot a wax ci alquran euh, mais amul ci yéen du arab du nit ku ñuul du nit ku weex kenn gënul kenn ki gën ci yéen daal mooy ki nga xam ne gënee na leen liggéeyam ci yàlla ci ngeen seen rek nga xam ne génnee na leen liggéeyam ci yàlla kii liggéeyal yàlla rek loolu la jullee ko rek yooyu rek la liggéeyal yàlla mooy daf koy liggéeyal ba tabax nit kii defar ko mu nekk nit koo xam ne nit ku dëgër la nit ku mën a taxaw la ndax booy booy tabax nit la ko loo ko a njëkk a tabaxee mooy jox ko xam-xam mooy nga jox ko xam-xam bu xam-xam xasee taxaw rek nit taxaw na am na kattan moom na boppam mën naa lii def loo xam ne daf koy daf koy daf nattale xam nga kuy nattale muy def nattale wu ko kooku daanaka wax defantu dara waaye koo xam ne li muy def nag am na lu mu ko nattalee bu wax kooku mooy xam ko defee bu defee ci yow xam-xam ne jikko yu xam-xam la jikkoy maandu jikkoy maandu jikkoy mbaax jikkoy def rek te yàlla rek moo tax ngay def sakku sakku ngërëmaande yàlla jikkoy yar sa sa société du sa doom rek ak say ak say njaboot ñu sa société ñëpp ñi toll ci sa at doom yëpp sa doom lañ ñu toll ci sa at baay yëpp sa baay lañ su ko defee ñooñu ñëpp nga xam ak boo xam ne yar yoon la boo xam ne kii sama baay la ndax war na ma ko dana war kii sama doom la ndax war na ko su ko defee nag ci loolu. moom la ñuy tabaxee société yi nga xam ne moom la nit ñi bëgg a tabax waaye société yoo xam ne dafa ko bëgg a tabax rek ci kaw doole comme euh, euh, société communiste communiste yi xam ne ñoom ñëpp euh, lañ xam révolution armée lu nekk daal doole rek lañ koy mën a soppee su fekkee nangu woon da su su ko doole ji mën soppi dara soppiwu ko su ko defee doole bu soppee ñëpp soppi ñëpp ay jaam lañ ndax nangu rek la ñuy def nangu rek bu ñu nekk ci mooy yàlla nga ne mooy yàlla boo ne kàlla max mooy yàlla ñu ne mooy yàlla ñoom doole lay nga jaay nangu nga doole ji mooy ne nekk naa jaam lu ñu wax rek nangu naa ko kàlla max du juum ka max topp du juum ñoom ñëpp duñ juum li wax dëgg la li ñu wax ya wax duñu wax ne yàlla ko waaye li wax ñoom ñoom yàlla parce que li wax mooy dëgg parce que dañ daanoo tak doole rek Eh, eh, eh, tiital nit ki ba mu tiital ba mu tiital tiit rek nga moom ko jeex na ah su ko waaye révolution bi nga xam ne moom révolution mentale lay doon soppi mentalu nit ki comme ni ko alxuraan dugal dugal teg alxuraan te mu dara forcé la ne la gëmal yàlla na ya am na par force dégg nga def naa ne seetal seetal seetlu seetlu asamaan si seetlu suuf si seetlu nit ñi seetal nangam seetal nangam seetal nangam seetal nangam mu nga bàyyi ak sa xel ne la seetalal sa bopp ba gisal sa boo gisee sa bopp da nga xam lii jar na ko wala jaru waaye ñëwul rek force la pour nga ne yàlla moo fi nekk na mu waxul loolu moo tax yonent yàlla Muhammad daana métti lu bu gisee nit ñi bu euh, gisee nit ñi di bañ a gëm yàlla yàlla ne ko la àllaka baaxaw nafsaka allaa yakuunu mu'miniin da ngay rey sa bopp ndax nit ñi gëmuñu yàlla ndax nit ñi gëmuñu jaru ko in nasha'u nunzil alayhim mina samaa'i aayatan fa zallat a'naaquhum lahaa xaabi'iin su fekkoon ne ñu gëm rek la doon kon danaa leen defal kéemtaan boo xam ne waxuma la gëm waaye dootuñu yëg dootuñu nangu dootuñu yemee gën sax seen mbokk yi xool jëm asamaan de waaye gëm noonu bëgg yow mu ko noonu de dama bëgg nga gëmee ak sa xel gëmee ak sa nangu ñëw ci man ak sa tànn yow yaa tànn sa moo tax wax naa yow si mu ne in kuntum tuhibbuna Allaha in kuntum tuhibbuna Allaha waxut in kuntum tattaquuna allah in kuntum taxshawna allah in yooyu yëpp ko dafa nga xam ne bon sa yàlla du jafe-jafe moo fa jaar euh, bëggante amul moo fa jaar sa nga fa war a jaarale waaye nag bul fàtte toujours ne nit ki mooy nit rek mooy borom jëm gàtt boobu nopp yi gàtt yooyu rek lañ mën a gisee wala seen gisee yaatu bañ mën cee boole ñëpp dana jafe yàlla ñu ko yàlla may ñu bëgg nañu si bopp rek ngir yàlla wasaariqu kaamoon sàcc sàcckat bu jigéen la wasaariqatu ak kaamoon sàcckat bu góor la xam taw dog leen ay yow maa ngi dafa seen de sàcc muy sàcc bu góor ak muy sàcc bu jigéen yëpp ñoo benn àtte na dagg seen loxo yi dagg loxo nag ci sàcc balaa am foog mu mat nangam ci xaalis dinaar rëboo dinaar xam naa fi nekk nii boo seet dina war a tolloog ay juróomi téeméer rek yu yu yu mel wala juróomi junni dina ak foofu bu ko defee. surtout bu original bu yëg moom lañ daan cane jigéen pour takk ko su ko defee su fekkee li nga sàcc mat na ruboo dinaar te sàcc bu wér la eh, sàcc bu leer la seede nañ ne sàcc la yow itam nam nga ne la bu boobaa dañuy dagg sa loxo de waaye su fekkee am na benn lënt lënt sàcc kooku kenn du dagg loxoom li lim sàcc ëpp na sax ruboo di ko jàppee itam duñ dagg loxoom waaye baytul maal muslimin daf koy jox lu mu dund su fekkee nag sàcc rek sàcc rek bëgg sàcc rek comme suñu jamono yi xale yu beew yi rek a a réew ba kenn xamatul nu ñuy def ñuy def leen loolu mooy sàcc fi nekk nii ndax dañuy rey nit ñi di jël seen alal yi dëgg-dëgg soxlawuñ ko dañoo beew rek dañoo réew rek waaye pour jël alalam jafe xanaa dem ko jël pour yow waaye du ñàkk mu ci xiir su ko nag bu loolu amee sàcc bi nga xam ne nag sàcc na dëgg-dëgg atteem mooy dañuy dagg loxoom bu ñu dagg loxoom ci kaw bi takk takku njara foofu lañ koy dagg foofu lañ koy dagg suñ sa loxo boo sàccee sàcc bu njëkk ñu dagg sa loxo càmmooy sa loxo ngay ñu dagg ko suñ ko daggee ci kaw bi ci kaw ci kaw bi su ko defee dem fayu ba wéew boo sàccaatee nga ñëw ñu dagg beneen loxo bi càmmoñ bi su ko defee soo sàccaatee ñu dagg sam tànk soo sàccaatee xaw ma ndax sàccukaay amatul ci yow boo sàccaatee nag su nekk dañ lay tëj kaso rek dootoo fa génn mu jeex tak tëj la rek dootoo génn rek mu ne loolu mooy àtte sàcc mu ne wasaare ku kaa moom kaa kaa kaa moom sàcckat bu góor la wasaare takula kaa moom sàcckat bu ngeen de fab taw doog leen rek yow maay loxo seen rek na ngeen dagg seen loxo ñooñu ko waxee rek jasaan mu pay dinaa ko sabal jërëm fan la ko naka la ñu dugal de bu ko defee seen pay dugal yëpp waaye dañu dagg seen loxo ak seen tànk de ñu ne laay mu tukkee ci yàlla dugal moom nag yàlla moo ko tëral kenn tëralu ko yonent yàlla Muhammad tëral ko benn ko yàlla ko tëral ko doonu li yàlla tëral la rek def rek wallaahu yàlla aziizun hakiim la muy suñu woram ak moom aja kawe na mu ci ay jëfam de faman taaba ku tuub na mu nag min ba'di zulmihi ci gannaaw ak tooñam nit gannaaw boo xamee ne dem na ba ne boppam moom tooñkat la génn kat yoon la mu tuub mu tuub ci boppam wa aslaha tam xëy na li ñu defoon yëpp ko di ko commencé di di ko dabaatal di def lu baax mu ne fay na waa yàlla yëpp dana mën a wut si moom boo defee loolu yàlla dana mën sa tunde inna laa naka yàlla rafuurun aji jéggal la mu yàlla ay ay yam raxiim na yërëm mu leen de tax nag kooku kooku kooku digle loolu mooy kan mu ne alam taalam ndax xamula yow ki may an allah naka yàlla lahu ñaar na ko mulku samawaati buuram asamaan yi juróom-ñaar wala fi am suuf yi juróom-ñaar de xamoo ne yàlla moom di wax ak yow mooy borom asamaan mooy borom suuf de yu asibu dana mu wal na ñu saaw ku soob ku soob mu wal rek dana la mu wal waaye ak suñu dana mu njëgal yàlla xajoon na ñaata na wala kulli shay si lépp la de yàlla moom wax na loolu mooy yàlla moo xam mooy yàlla mi xam ne lu ko neex mu def lu ko neex mu def kenn du wax ne lu tax nga def lii kenn du ko laaj kenn amul commission d'enquête gannaaw ñu nga amul commission d'enquête amul dara yàlla moo ko def jeex na man yàlla maa ko def ak sama kattan ak sama moomeel yëf yi maa ko moom kenn bokk ko man maa ciy def lu ma neex li ma ciy def yoon kenn nekku ci ku ko enquête itam da ngay rek waaye doo gis ku la tontu de bon nag yàlla moom wax na ne nag maay def lu ma neex mu ne mooy dugal mooy yërëm ku ko neex dugal ko àjjana moo tax yonent bi mu ne kenn ci yéen du dem àjjana ndax liggéeyam kenn ci yéen du dem àjjana ndax liggéeyam ñu ne ko ba ci mu ne ba man ñu ne ko ba nag naka la mu ne lu dul yërmande yàlla rek ku yàlla yërëm rek dugal la àjjana moo ci nekk kon nag la eh, waaye bokk na nag ci la yi la yàlla yërëmee mooy xiir la ngay def ci yi nga ne ci la yërmandeem gën a jege xiir la nga gëm ko xiir la ngay def lu baax xiir la ngay julli xiir la ngay def lu baax yëpp bu ko defee loolu ci buntu yërmande yi nga xam ne eh, tëral tëralal na ko jaamam ak yeneen buntu yërmande yoo xam ne ñun xamuñ ko bu ko defee yàlla mu ne ku mu neex mu yërëm la dugal la àjjana ku mu neex ci tam mu mu mu sànni la yow ba safara rek wallaahu yàlla xañ na ak yàlla na ma la tuñ ci lépp la rek yaa ay wa rusulu te yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yahzunka la mu mu jaaxal la mu tiital la mu teral la te ngeen ñaari saa yoo xam ne dañuy tàbbi fépp fii ci kéefar nga di lool nga di leen gis mu loolu bu la jaaxal te bu la tiital rek te bu la teree def nga xam ne yaa ngi koy def koo te jëme ci yàlla rek allaziina minal laziina shay'an xaaral wax nañu ne ah man laa gëm nañu di def waaye ci làmmiñ seen rek ñi xam ne wax ne gëm nañu yàlla ci seen làmmiñ rek lañ ñu ak ñi xam ne nekk nañu ñëwoon lu mu dem sama wala borom tuuti gëmul kulu bu may ko seen rek te seen xol gëm nekku sa wala ñu ne ñaari aar bu ñëwoon dëgg ak ñi xam ne ñëwoon dañ ci ñi ci ci ñëwoon di nekk ñun ñoo xam ne sambaaw lañ déglu alxuraan lañ liñ ko si jëm ci ay rab rek am na ci ay yoon yoo xam ne seen liggéey fen wi déglu fen rek déglu wax yoo xam ne wax dëgg rek gëm a gën mu gën laa neex ndax dëgg-dëgg boo demee fi nekk nii di nga déglu borom xam-xam bu ñu naan am na nangam a nangam am na lii àgg na ci ca xam-xam mais da ngay déglu déglu déglu déglu déglu dëgg-dëgg dafa jëlee loo xam ne. te leen a mën a dolli dara loolu rek werante yu rëy rek dana dugg sa ak ay questionnement yoo xam ne lu jeex du xaaj te question wax questionnement yooyu yëpp boo demee iblis mooy cosaan ndax moo njëkk a laaj yàlla dafa lu tax ngay def lii boo ko njëkk a wax yàlla rek lu tax ngay def lii waaye nag te seen moom boobu bu iblis boobu ci la àddina di jaaree ba léegi luñ bëgg a jafeel rek dañ koy jaarale tëralal ko ci ay questionnement yoo xam ne ñu ngi am façon laaj yoo xam ne bu ñu la ko laajee dëgg-dëgg da ngay da ngay da ngay jaaxle lool ndax doo xam ne tontu ndax li ngeen war a tontu boo leen tontoo ñu ne la ah ñun waxuñu loolu ñun affaire science la ñu wax affaire xam-xam la ñu wax waxuñu waxi waxuñu waxi euh, euh, loo xam ne gisuñ ko rek moo tax ñoom foo leen fekk rek. ah kii lu mu wax ah lu mu wax jiw sangam lu mu wax ah, ah lu lu professeur wax ah lu doctorat wax rek yooyu dañuy topp tooy fekk yooyu ne wax ay bébé lañ comme yow def sama aw la déglu ah bon lañ yoo xam ne ñaar aw nañ ah kañ lañ ñëwee rek ñoom itamit nekk ngi di déglu ay yeneen yoo xam ne ay yëngoon lañ gëmuñ yàlla mu ne ñooñu ñuy def mu ne jaaxal de du tere yow moomu ñu daan dem ci seen kaw de. Raha lam yatuka timkan lam yatuka dikatiyula yuharifuna bisabqin kalimati an tawraja ñoom waxtu ñu gën ci yow dañuy ñëw rek li nga xam moom nga tawraat tëraloon ñuy jaar ci dañuy ñëw di ko soppi di ko soppi di ko indee leneen yuharifuna danañ soppi lan kalimati an tawraja min daal di moo am yi ci gannaaw ak tër ak tëralante gannaaw boo xamee ne tëral nañ ko nii ñu ñëw ñoom di ko sant te dañu ko neen de yaquluna danañu wax ñoom in utiitum ñoom joxeef nañu xayran haadaa li le ah itam gën di ngeen am foofu ñu jàpp leen ko de ñu ngi leen di wax ñu am ci tawraat ak yooyu dem wax rek bu waaw leen ko bàyyi rek. waaye dem tuutoo ngeen di génn leen lu gën tawraat indi leen yeneen atte wax dëgg waxtaan ko daan bu leen leen déglu de maanaam li yonent indi bu leen ko déglu alquran bu leen ko déglu ndax dañ leen di wax waxee wax ne dafa uteeg li daw leen di wax de waxu ñu ci laaw ko namul yàlla ci ne tawu ak weeralam balam tëm dika xam ci la lawu yaa ci la lawu ko mi ne laay tukkee ci yàlla dara boo xam ne yàlla ko bëgg a réeral kooku moom ak loo mën def yow yonent mënoo koo jubal mënoo koo jubal mënoo koo jubal de ndax lan innaka laa tahdii man ahbabta walaakinna llaaha yahdii man yashaa yàlla rek mooy jubal de ulaa'ika ñooñu la gaay allaziina mooy ñaa ñu dem ñu laaw na mu yàlla ñu bàyyi ko bu mu laaw la xuluubuhum ay xol seen ci kéefar de ñooñu ñu def loolu yëpp mooy nga xam ne yàlla bëgguñu set ci kéefar mooy yow yi nga xam ne bëgguñu seen mbokk yow di yéen déglu ci lu leer ci alxuraan bu ñu bëggee déglu ci lu leer nga leen dem leen su fekkee seen téere boobu ngeen di déglu mën naa indi lu gën suñu téere bi bu la neexee gëm leen waaye téere boobu mën ta indi lu gën li nga xam ne ci ngeen nekk de ñooñu di wax loolu mooy yéen ñi nga xam ne yàlla bëggu te bëggu leen a laabal ci bàkkaatu kéefar de daf leen di bàyyi ci seen kéefar bañ nekk de la moom war na ci ñoom que suñu toroxtaane te dina ci àddina ñun torox torox rek ci saa dina nekk wala hum war na ci ñoom alaabun mbugal fi laaxira ci àllaaxira ak si mu daal di màgg rek ëllëg ca àllaaxira mbugal bu mag lañ rek sama woon ñoom dañ ko àppoon nañ liñ kës biñ lekka lekka lekka lekka àppoon nañ dañuy lekk ñu soppi ci ngerde ñooñu foo leen fekk rek fen rek lañuy topp doon ñu ko ñu leen gere rek ñuy ngerde اللهم صل على سيدنا محمد امين nañu ni ñoo ko ci yàlla tabaaraka wa taala لك السارق والسارقة فقط أولهما جزاء بما لك من الظلم tamit jënd nañu li ñu wax ci li nga xamante ni mooy ñëpp jël li nga jàmm mooy àtte li nga xamante ni moom la yàlla teg ci kawam donc ñu jox ñëpp dig daje ñu ko suba jàmm incha allah wala ci kanam tuuti ci salaat phrase bi ci naan bi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu